léegi Rose sa programme ñu dugg sa programme sa programme da nga ko euh, ci ñaata point ñaata axe. bii de mooy bi ci gën a bi ci gën a kii moom. non mi lekk ba suur. ci la bokk nañu moytu pilotage non du pilotage arbitraire ñaata axe moo ci nekk euh, programme yaa ngi may dekk ci yaa ngi may dekk les trois axes prioritaires de votre programme. éducation santé lekk ba suur am dëkkuwaay bu baax man chaque jour ma répété ko foofu émission bu ma dem. ma répété loolu. nit fa mu fa mu toog sénégalais. na nga lekk ba suur na nga mën a jàng na nga mën a am santé bu baax loolu chaque jour ma wax ko loolu mooy suma quelles sont les réformes pour y arriver ah les réformes loolu moom euh, defe naa ne bu ñu commencé tey moom maa di ngeen ma may. non non non la particularité de de de votre programme. waaw parce qu'il faut que ñu xam lan nga indi lu bees parce que discours yëpp benn la apparemment. non non discours yëpp bees mais da ngay dem ba ci biir nga xam tey bu may wax tey santé c'est mon domaine. de compétence vous appelez à la à une rupture. mais bàyyi moo yooyu ay rupture non c'est le slogan donc changer il faut réformer voilà il faut réformer le système toujours ma wax ko Birama tey boo gisee cartographie bi yow xam nga ci dara boo demee ci àll yu yi mais a pas de médecin y a pas de centre y a rien hmm. il faut décentraliser dama koy wax chaque fois ci suma programme dama bëgg décentraliser dama bëgg ñu former du personnel médical la formation du personnel compétent dans les zones reculées am na mais nañ ko yokk toujours mu ne am na lu fi nekk mais dañ ko war a yokk dañ ko war a réformer dañu war a tàggat médecin yi euh, nu tudd encourager la ñu dem ci zone enclavée yi ñu décentraliser yi seet la nga xam ne moo nekk foofu euh, la nga xam ne amul ñu def ko fa def fa ay ay centre ay poste de santé digne de ce nom nga xam ni képp ku nekk ci àll googu di nga mën a faju di nga mën a am un minimum de soins bañ a jël ay kilomètres i surtout que amuñ yoon yu baax amuñ ay ambulance bëgg a ñëw ba fii am na ay ay ay ay euh, compétences yoo xam ne ñu ngi leen di former même bu ñu nekkul médecin mais dañ leen di former pour ñu dem ci àll yooyu mm-hmm. donc formation c'est important mm-hmm. relever le plateau sanitaire mm-hmm. dégg nga maanaam fu ci nekk ci àll bu nekk nga mën a am au moins loo xam ne boo fa demee da nga mën a faju dégg nga euh, euh, loolu yëpp maa ngi koy wax euh, xool aussi vraiment formation paramédicale bi ñooñu ñëpp loolu yëpp ci la bokk équipement yi tey lu mel ni radiothérapie war nañ ko mën a am dans chaque région man duma accepter Dakar nekkoon le pôle de la médecine dégg nga tey ñuy topp di topp yeneen dëkk yi di daw seen gannaaw pour jël ay maladies yóbbu foofu ñu defi radiothérapie ak lu ma xamul ndax tey booy xool Dakar Dakar ay formé marocain yi Dakar ay formé tunisien yi. Dakar ay formé mauritanien yi mais Dakar dañoo am ay compétences Sénégal dañoo am ay compétences il ne faut pas les laisser partir. dégg nga dañ leen di bàyyi ci dëkk bi ut ay équipement yu doy former xale yi former médecins yi. encourager la ñu décentraliser Sénégal foo toll santé bi ne baax. à propos de la formation boobu ngay wax tamit docteur. gis nañ ne école de santé yi bëri nañ trop ci dëkk. waaw école mais bu ñu paree seen liggéey dañ leen war a mën a nag yóbbu ci ci. mais seen diplôme yi du parfois ah. c'est pas reconnu par l'État c'est ci dëkk loolu da ngeen ci wut solution. Mhm. waaye li wóor ba wóor. yow boo demee boo demee parfois ci àll yi ay bàjjenu gox ngay gis ñuy rewle. Mhm. donc boo ci amee loolu sax sant mais dañ leen di recycler. même ngi nekk ci àll bi dañ leen war a recycler dañu war a améliorer seen formation jàng du doy jàng du doy mais santé dafa nekk loo xam ne c'est tellement sensible te ma gis ne Dakar daf ci avancé bu baax ndax lu baax lu fi jógee dem feneen ci ci suñu sous-région bi laajteel ku fa baax fii lañ ko formé mhm. waaw mais nañ gëm suñu bopp nag defar suñu système bi ba mu baax mhm. Mhm. waxuma ne nag defuñ fi dara def nañ fi mais dafa des lu bëri pour ñu mun a vraiment am une santé de qualité éducation bi. Mm-hmm. mais éducation bi tey man bëggatuma dox fenn ci àll yi bay gis ay abrique provisoire xale dafa di loo xam ne mooy avenir dëkk bi dañ ko war a defal un environnement. digne de sa nom. Mm-hmm. dégg nga la santé environnementale. Mm-hmm. ñu def ko ci école yi dégg nga euh, def ay ay assister xale yi ñuy jàng bu ñuy jàngul. ku ci nekk ñu jàngal la métier. fii cent pour cent xale yi dañ leen war a taxawu. Mhm. mais secteur bu nekk tey buy dee bu agriculture xoolal tey au Brésil li nga xam ne foofu dañ fay former ay technicien agricole mais boo bëggul jàngi demal def technicien agricole. Mhm. demal def yeneen secteur yépp mën nañ leen former. mais taxawaalu bi lañ war a bàyyi parce que tamit xale yi aussi ak ñi jàng ba pare am diplôme ñu war leen a mën a dugal ci ay secteur nee naa na secteur privé sénégalais bi mu ngi fii pour xaar seen rakk yi tàggat leen former leen taxawu leen ba nga xam ne suñu ressources yi ñun ñoo koy gérer mm-hmm. waaw mais kenn du ko gérer donc y a tellement de choses à faire ma mosal la loolu ci ci ci kii bi agriculture bi mm. dama ciy ñëwaat une agriculture intensive ce candidate là donc euh, si vous avez. waaw maa ngi ñëw. des interpellations maa ngi ñëw non man dama bëgg a. yow d'accord nga ne tey kenn waruñu mun a am ak une agriculteur li ñu am ci suuf ak ki naaj ak ki ndox ak ki doole. Hmm. mais tey war nañ mën a def agriculture bu bu amul fenn war nañ fi mën a sax di di fabriquer ay engins agricole hmm. fabriquer ay engrais bi yow yàlla secteur privé sénégalais euh, euh, secteur kii boobu euh, kii boobu ngay dégg projet boobu agro biovision agriculture intensive la ñuy def fabriquer suñuy engrais parce que engrais chimique yi ñu ki baaxul ñun war nañ mën a man santé laa nekk donc engrais bio ak produit bio la agro biovision di def secteur privé sénégalais moo ko teg en place mm-hmm. mais loolu lu lu doy waar la war ñu mën a defar suñu produit am suñu port boo xam ne nag avec sa situation géographique nous permet d'exporter mais lan moo ñu dese on a des solutions mais dañuy toog di di xaar rek on a des solutions Birama lan nga bëgg a encore la création d'emplois mais tey boo jëlee secteur privé sénégalais bu mu mais domaine bu nekk mën nañ ki tàggat xale yi ah. bu ñu jàng ñu former leen mhm. lan nga bëgg a ci loolu laa mën a wax ci les points prioritaires de mon programme